asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi mujj jëm ci tàggat yaram fii ci Le Monde Sport TV ñoo ngi leen di invité ngeen abonné te bés kolos de notification bi ndax kat loolee bi loolee lu muy waral nekk ay information sport yu wér te wóor YouTube yow la koy njëkk a a wàcc sa dafa nekk lu nuy jàppale chaque jour rek dañu koy wax waaye nag di ko waxaat pour ngeen bés ko ballon ngeen gis moom la ñu njëkk tey ji ci xabaar yi lu waral ballon mondial coupe du monde ba amee ca Qatar réew mi nga xamante ci ne bokk na ci réew yi gën a développé réew yi gën a dàq réew yi gën a neex muy Qatar ballon bi ngeen gis moom la ñu war a samp ci ba war caa fubale coupe du monde ba kon nag bi maa ñaan gaynde ya nga xamante ci ni gaynde di na ci dugal ay bit Sadio na ci appelé ay bit Sadio Mané yàlla na ñu jëlal ballon ba Sadio Mané yàlla na yëkkati coupe du ba loolee bëgg yéen it ba tey ji coupe du monde ba du ma ca jug ndax xam ngeen ne doomu France bi ak Sénégal di Boubacar Camara Sénégal it bëggoon ko andi fii ci réewum Sénégal gone gi it mbir yi xaw a yéex ak Aliou Cissé di cukki-cukki gone gi nag mujj dal di rejoindre France maanaam dem équipe nationale de France waaye nag xam ngeen nekk ca Premier League ba ñoo génne bataaxal bii ma leen di bëgg a mu nekk bataaxal boo xamante ne nag mafia nofel maanaam neexul ci équipe nationale de Boubacar Camara wa Aston Villa nee nañu dafa blessé ca Oumé maanaam Oumé daal ma ngi fa yëg mitit wu doyo doy waar mitit wi moo waral mënul fekk ci mondial ba ñoom waa Aston Villa nee nañu même bu dee France jël na ko yóbbu ko ci mondial bi gone gi du football wala bu jee danañu ko football loolu danañu yàq ab carrière am ndax kat dafa mel ni gone gi la mu ba métti na tey ci ni waa àddina bépp koy bëgg a teewee ñenn ñi dem Qatar ku ne di wut fa jaar moom nekk di Harry Maguire xam ngeen ne la nekk foofee ca biir Manchester United mooy seen numéro 5 di seen capitaine xam ngeen ne daan ngeen ko dégg ci problème ay nit sax bëggoon ko dem këram dal di koy agressé moom xam ngeen ne kat supporteru Manchester United dafa mel ni gone gi la muy def da leen duy ndax gone li muy def ay erreur dafa bëri maanaam li muy contour sa camp di ko jàll jàlleen yu doy doy waar loolee dafa yomb ndax la te nag Manchester United li ñu ko jëndee lool te dafa mel ni la mu di yàq bëri na loolee nag moo war waraloon moom ay problème waaye nag xam ngeen ne maxi bu rëy rëy bu àddina bépp di xaar mën nañu ko tuddee nag classico ndax classico la daan doon moo war a dox ci diggante Manchester City ak Manchester United moom ki la nag di xaar ma guwéer dafay forfait maxi ndax kat xam ngeen ne du ca bokk maxi boobee nag xam ngeen ne kili di xaar ma guwéer mënu koo football ndax dafay amee li nga xamante ci ne moo ko téye ca maxi boobee te maxi boobee nag maxi bu neex lay doon ndax ko xam Manchester United ak Manchester City xam ne maxi boobee derby la dina rëy te dina neexa Marseille Marseille Olympique de Marseille nekk ci championnat France xam ngeen ne nag ñoom it dana waaye nag seen maxi boobee jëm mën ca la ba dugal ci bi am am solo maanaam ñetti bal ci dara la ñu dooru loolu nag moo dal di waral ñu am ndam lu seen wecc kon nag Olympique de Marseille kon nag ñu ngay jëmbal seen taxawaay ngir kat li leen dese yit ci championnat France bi même bu ko jëlit ñu jëlaat deuxième bi ngir mën a ñëwaat de Marseille xam ne ren kon nag olympique de Marseille ña nga noonu dem waaye nag li waral yi ñu tuddalee leen information bébé doomu Sénégal bi la di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng boroom tur wu sell wi borom tur wu neex wi Bamba Dieng tey jii kat départ na ca match boobee maanaam bu ñu waxee départ na maanaam football na ca match boobe ba mu tollee quatre-vingt-quatrième minute Luis Suarez moom nag bukkul ak luy Suarez mi nga xamante ci ni moo nekkoon ci championnat Espagne club bi la di Barcelone waaye nag Luis Suarez mi ma leen di wax doomu kulum bi la moom moo génn Bamba Dieng dugg kon nag Cheikh Ahmadou Bamba Dieng tey jii la defaat premier match ci championnat France rawatina nag ci stade bu Nice boobee kon nag Bamba Dieng mi ngi noonee na ñëpp tàllal yi ñu ànd doon làmb ji yaba dugalal waaye nag nanu koy teg ngir kat loolee dina dalal xelam ndax kat xam ngeen ne Qatar moom dafa nekk réew mu neex waaye nag mondial ba amee ca Qatar dara gën a ko neex muy coupe du monde bi Sénégal bëgg a jël àddina bépp bëgg ko jël mondial bépp di ko xëccoo kon nag fii laay tëjee xibaar yi rek di leen jox dig daje nag ba ci kanam ak beneen xibaar bu tàng jër ba kenn du ko mën a téye